mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte teewaat fii ak euh, soir d'info am mbégte dalal lamin Ba bokk commité directeur PDS Lamine Ba ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Ablaye. alors yow yaay président fédération nationale des cadres libéraux également ñu war a waxtaanee discours Karim Wade ndax dañ ko gëjoon a dégg. alors ci nouvel an bi ñu gis euh, mu def euh, adresse aux Sénégalais mais déjà mooy ni wax le fond la forme. interroge am na ñu ne intelligence artificielle la moom moo wax ci boppam wala intelligence artificielle boobu ñuy wax la maanaam jumtukaay yu xarala yi ban la ci déjà il faut qu'on règle ce premier problème même si ça te fait rire <laughs> apparemment d'accord merci Ablaye ñu ah. nuyu seeni téléspectateurs mhm. di wax rek ne euh, Karim euh, c'est vrai comme ni nga ko waxee sénégalais yi dañ ko doon xaar di ko déglu aussi mhm. euh, mu wax Euh, wax ju am solo euh, ni mu ko waxee comme ni nga wax am na ñu ko def problème di wax intelligence artificielle bon je pense débat boobu lu mu ci sore hmm. parce que day nekk une volonté pour man de d'aller sur le vrai de mm. le vrai débat mooy tolluwaayu réew mi. mais mais malheureusement hmm. Lamine je suis désolé de t'interrompre mais malheureusement débat bi instauré wu na am na ñu bëri gëmuñu ni moom moo wax. c'est ça le problème finalement et ça parasite toute la communication finalement il faut le reconnaître également non non pas forcément xam nga man Saloum Saloum laa mhm. euh, Saloum Saloum dañuy faral di wax ne koo téye njatt ko ne ko weer baa ngi nii mun mhm. la gisuma ko munoo si dara munoo mhm. si dara euh, Karim wax na wax ji moo am solo euh, waxin ak wax ji moo am solo intelligence artificielle nam déet duma ne la baaxul mais tey jamono ji defe naa ne bokk na sax ci suñuy habitude de consommation lu intelligence artificielle di déterminer. Mm-hmm. foofu la adduna toll. Mm-hmm. Euh, ba tax ni euh, tey képp kuy wut euh, am envergure bi mu am am dayo bi mu am je pense que di nga jël mutuwaay yi nga war a jël yëpp. Mm-hmm. pour sàmm sa image. sàmm sa communication ba mu amal njeexital. mais justement ma des ba léegi ci ci forme bi est-ce que doonul woon gën a simple bu toogoon ci salon am foofu noonu mu nekk ca Doha wala ci jardin ba wala men feneen foo xam ne un cadre naturel eh, eh bien wax ak sénégalais yi. merci beaucoup. Hmm? il aurait pu le faire. Hmm? mais il a choisi la sacralité. Hmm? parce qu'une adresse à la nation dafa laaj posture. ak solennité dafa laaj solennité. Euh, te mu wane aussi ne. Euh, def na ko le lendemain du discours du président de la république mhm. donc loolu aussi dafa am njàng buñ ci war a mën a mooy wane ne moom li nga xam ne ni mooy héritage républicain mhm. bu ñu fekk Sénégal lu ko ñor la mhm. lu ko sooxeet la donc loolu la ñu war a mun a jàpp ci contexte bi ak forme de communication dafa bëgg a rendre les choses solennelles rendre cette adresse importante et de très haute portée avec les Sénégalais moo tax mu taxaw avec précision la doon wax li mu wax euh, ku dégg Karim Wade xool ko dans le gestuel mhm. maîtrisé dans le regard li nga ciy jàpp mooy la clarté dans les idées mhm. li nga ciy jàpp mooy la précision dans les propositions li nga ciy jàpp mooy le respect du moment et de ce qu'il a envie de faire avec alors dans le contenu comme commencé nga ci noonu donc mun nañ ci jàpp ni may wax wax na ci exil maanaam ni mu génnee réew mi boobu ba léegi te du coobareem Euh, candidature am euh, programme aussi fu mu bu ñu ko joxee réew mi fu mu ko bëgg jëmee donc ñu taxaw déjà ci ci ñëwam nee na danaa ñëw mais kañ. Ah, loolu la ñoolu ñëpp di laaj tamit Lamine balaa nga naan naam ne fa. d'accord. <coughs> yàgg na dem mais ba léegi ñi ngi waaj a dem campagne <laughs> électorale ñi ngi ci pré campagne bi à partir du 4 gisaguñ ko. mais Karim démb la wax. Mhm. bi mu waxee démb maa ngi ñëw. kon donc mun nañ ko muñal. je pense que maa ngi ñëw boobu sénégalais yi muy waxal. ak waa PDS yi muy adressé wul dégg nañ ko. Mm-hmm. et xam nañu ne ku war a mu a muñ fukki at ak ñaar douze ans. Euh, du ay fan ak yi semaine mooy nekk sa problème. Mm-hmm. donc euh, le parti du loolu mooy problème jàpp nañu lu mu ñu wax. mooy que nii il a dit aux Sénégalais au parti que ni dina ñëw et très prochainement joxe na rendez donc ni xaar mu joxe date. boobaa sénégalais yi dem textu ko euh, ganale ko euh, gunge ko ci li mu bëgg a def ci réew mi. amul obstacle ci ñëwam boobu ndax xam nga ni ñuy wax euh, condamnation bi ko toppoon ak CREI yi dafa àndoon ak alamaan ni ko wolof yi di waxoon est-ce que du loolu du ko tere du ko tere bokk ci jongante gi. est-ce que am na ci charte bu ñu ko bind ci réew mi. am na ñu ne am na ñu ne bu wàccoowul ak moom mais am na ñoo xam ne tamit seen gis. gis dafa waroo effectivement ak ak loolu donc ñaar yee ngi fi xamuñu nag ban moo ci am mais comme yéen ci yéen la fare yéen yore seen i avocat tamit seen i layookat lan dañ ci wax ndax alamaan boobu mën na ko tere ñibbisi ndax mën na ko tere bokk yéen lañ koy laaj ñun alamaan boobu niñ ko jàngatee téye ko mooy que ni alamaanu ab juridiction la boo xam ne tey ay juridiction dañ koo daan hmm. ba wax Sénégal que Karim Wade am na sañ-sañu laaj préjudice que Karim Wade dañ ko tooñ te procès bi jaarul yoon euh, dafa baax ñu rappeler ay mbir der ñu bañ ko banaliser mhm. euh, Karim Wade je pense que tey euh, kawam mérité nañu taxaw tuuti xoolaat réew mi ak doxinu réew mi xam nga weesu Mamadou jaar amul benn homme politique Sénégal bu ñu tuumaal ci ay ay wax jaay la doole jàpp la yóbbu la ci juridiction boo xam ne nii réew mi raflé wu loon juridiction bu mën a juger Karim Wade bu fekkente ne lu ñu ko doon tuumaal dëgg la euh, bëgg topp nit est-ce que war na tax ñu jël li nga xam ne nii yoon ak xam ak yelleef moo ko ko may muy privilège de juridiction ñu na ñu bañal ko ko. est-ce que bëgg lu leer dina war a mun tax ñu teg procès tribunal boo xam ne nii tey euh, ñëpp a d'accord ne bu dee reddition des comptes rek a tax ñuy wax du tribunal boobu la ñu war a dem. Euh, ndax réew mi reddition des comptes bu ñu koy wax daa fekk ne euh, ci sa yorinu liñ la dénk ci réew mi am na ci ñi nga xam ne nii c'est les organes habilités mm. muy les corps de contrôle de l'État mm. def rapport bu war a mun a tax nga dem ci loolu amul Karim dañ ko tuumaal ci ay wax kese mm. euh, jeté ko en pâture jàpp ko tëj ko ñetti atu kaso à part Mamadou Dia amul homme politique Sénégal bu tëdd trois ans kaso mosuloo ko dégg entre nous euh, mosuloo dégg mu jàmbat dara jël loolu dans la dignité mu vivre ko terewul mu dem ne décision de justice la attaqué ko devant les plus hautes juridictions communautaires et internationales am ci ndam ba tey ñu war a wax état du Sénégal pour que mu war ko mën a ndàmpal euh, war a mun a réviser procès boobu euh, pour que mën a respecter ak ak yelleefu Karim Wade donc loolu dafa baax nit ñi di ko rappeler Eh, yemul rek ci tëj ko kaso mais dañ ko génne réew mi exil forcé dégg nga mu wax ko ci discours am eh, tere ko mu dem ziare sëriñam tere ko mu dem eh, ñaan ci ay xabru mbokkam ak ñu ko jege. donc loolu defe naa ne préjudice boobu loolu mën nañ ko jàngatee un préjudice immatériel. bu ñu mënul xayma. mais heureusement que Karim Wade sénégalais la heureusement que Karim Wade c'est un musulman heureusement que Karim Wade est un mouride. aguerri boo nga xam ne nii tey xam ne nii nit ak euh, yoonam nu mu mënti jafe-jafe mënta tar mhm. euh, dellu ci yàlla moo la war xool ci sa kanam moo nga xam ne nii mooy li nga xam ne nii moom la ñëpp war a mun a xaar ci mhm. ci moom ci jullit ci ci taalibe murit mhm. ak ci bëgg réew mi mu nekk donc euh, loolu la def taxaw malgré ces difficultés là mu dund exil forcé condamnation à tort pendant trois ans et cetera malgré ça tey ñëpp gis nañ ci discours am mu taxaw ne tey jéggale moo ko war xool ci kanam pour que Sénégal euh, ak développement am nekk ay priorité phare pour moom mhm. te ci loolu la jublu te ci loolu lay woo Sénégal yi alors développement mooy priorité ma ki demee noonu ban programme ci li mu wax rek boo ko mënoon tënkaat euh, comme ci nasaraan la ko wax campagne bi léegi mu door donc yan ban programme la nar a campagne daagan baatu askan wi pour euh, pour mën a pour mën a jot ci réew mi. loolu boo dégloo discours Karim Wade nga lire structuration mhm. discours bi ci ngay xam ne Karim du cuune. Mhm. et discours bi mu def ça mérite d'être mhm. enseigné dans les écoles de sciences politiques euh, boo defee analyse de la géopolitique mondiale def analyse de la situation économique de notre pays dans un contexte assez mouvant Euh, da nga xam ne discours boobu c'est un discours porteur d'espoir. Mm-hmm. c'est un discours de rupture de changement de cap ci loolu la woor Sénégalais yi ci loolu nag mm-hmm. Karim dafa dem plus loin d'un simple des mots. Mm-hmm. dafa dem ba parce que kuy wax politique publique da ngay wax. levier yi ak jumtuwaay yi nga war a mën a doxalee. pour réussir loolu. ci loolu dégg nga ci discours Karim mu tànn ñaari catégorie yi gën am solo ci réew mi. ngir seen dayoo. mais ngir seen contribution sur l' économie. c' est la jeunesse et les femmes. et la jeunesse et les femmes parce que jeunesse yi Karim wax na ko ci discours am mu les jeunes aujourd'hui représente douze pour cent de la population âgée de moins de trente cinq ans euh, ñooy yaakaaru réew mi. Euh, bien que donnée statistique boobu mën na nekk njàqare pour ñenn mais moom dafa gëm ni tey loolu dafa nekk potentiel économique lu ñu war a mën a exploiter euh, mu ne jigéen ñi ci réew mi euh, tey seen apport ci njàng mi ci éducation xale yi doon na lu nga xam ne ni tey dafa war a bokk ci sookal bu muy appuyé yow moom pour tabax Sénégal ëllëg mu ko tàmbalee ci mbiru immigration clandestine bi qualifié ko drame et c'est dramatique parce que umpalewul ne li ñàkk bakkan ci géej gi ci jamono yi euh, dafa jéggi dayoo euh, mais il faut aller au-delà du simple constat mm-hmm. euh, yal na leen yàlla yërëm mais tamit mais tamit am na ñuy fàttali ne ci jamono yi justement régime libéral bi la fi loolu tàmbali ak takarnaase Ablaye mm-hmm. je pense discours bi c'est pas un discours de polémique mm-hmm. waaw mais loolu fàttali de constat mais dafa baax dafa baax tamit bu ñuy constater ñuy fàttaliku. d'accord naa loolu it lu ñu leen mën a. fàttali le phénomène de l'immigration. di ngeen nekkee ci nguur gi comme fa ngeen fare. je vais yéen libéraux yi ca la tàmbali. mais le phénomène de l'immigration. ne concerne pas que le Sénégal Barça wala Barça. mais le phénomène ne hmm. concerne pas que le Sénégal exactement ça aussi c'est vrai. l'Europe est aujourd'hui victime d'une immigration hmm. arabe d'une immigration. européenne parce que tey gis nga avec les contentieux qu'il y a au niveau d'une certaine zone européenne ñu bare ngi màbb jëm Europe Europe mmh. France Espagne Italie nga gis les crises yi am dans le Moyen-Orient en Syrie en Libye mm. euh, ont poussé quand même beaucoup de gens à aller vers l'Europe donc l'immigration est un phénomène mondial peut-être que la recrudescence a mm-hmm. été constatée pendant que nous étions là vers les années mm-hmm. parce que loolu gis dafa am doxit ñu jéem ci la ñu mën apporter ci ay solutions concrètes. Mhm. nous n'étions pas on n'était pas dans l'immobilisme je rappelle que nous avons été et nous avions eu le courage sous de dire l'immigration concertée mhm. en lieu et place d'une immigration choisie mhm. que Nicolas Sarkozy voulait nous vendre. Et de ce fait, on a essayé de mettre en place autant de politiques et de dispositifs yu nga xam ne nii à l'époque c'était pour fixer les gauches chez et pour permettre à ce que xale yi dootuñu vendanger leur vie. Mhm. Et dans le discours de Karim, mhm. Karim, il part de ce constat-là, de cette problématique majeure, pour dire que sa volonté aujourd'hui et l'objectif visé, c'est de restaurer la fierté. Parce que derrière cette immigration-là, il y a un vrai problème. C'est qu'est-ce qui explique mm -hmm. que notre jeunesse, qui doit être l'avenir de notre pays, mm -hmm. de notre pays qui regorge de toutes les potentialités économiques, mhm. qu'on on a des ressources naturelles, on a un héritage, comme l'a si bien dit Karim Wade, culturel d'une très grande importance. Mhm. Et on a quand même une jeunesse dynamique bëgg a jël tey mhm. réew mi li ñu war a taxaw tabax ka ñu bëgg ko fi bàyyi pour dem mhm. beneen jéggaani ko feneen donc Karim je pense que il a fait un discours qui très clair parce que wax na li mu bëgg ci ndaw ñi que ni ñoom la yaakaar pour tabax Sénégal et que même il est allé plus loin pour dire que dafa bëgg a instaurer un climat de dialogue avec les jeunes de dialogue permanent par la mise en place de plateformes qui vont lui permettre de communiquer de dialoguer avec les jeunes et de recueillir l'ensemble des Mmh. préoccupation doléance de la jeunesse ay genre conseil de quartier même bu dee tuddeewu il a demandé à ce que ñu mettre en place des collectifs dans les quartiers exactement dans les villes villages mmh. pour que ñu sas ko mmh. Karim se positionne comme un un un Sénégal c'est-à-dire quelqu'un ku ñu war a mën a sas mu doxal ko jël dayoom jël tempsam jël kattanam mu def ko ci. alors Lamine Ba ni ma la doon wax depuis sànq balaa nga naan naam ne fa euh, malheureusement du ñu mën a continuer xuus ci programme bi même si effectivement dans le discours il y beaucoup de choses yu ñu mën a waxtaanee yoo xam ni am na solo. balaa nga naan naam ne fa parrainage bi tey ba jamono ji ñuy doon dugg studio euh, ci li ñu am ci ñi ñu segg professeur Daouda Ndiaye ci suba kese moo jàll y ak ñoo xam ni dañuy passer deuxième tour ndax ay doublons externes yu ñu war a changer yéen ban xeeti parrainage ngeen choisir euh, pour euh, déjà mën a jàllale euh, candidature Karim Wade ban parrainage ngeen di demee. PDS dem na ci parrainage parlementaire. parrainage parlementaire. loolu la ñu déposé. alors li ci des. Uh-huh. mooy ci wàllum parrainage bi. Uh-huh. fa fa laa bëggoon ñëw. c'est un vrai problème yéen parti politique yi homme politique yi vous devez commencer à réfléchir. li xew nii euh, bi ñu commencé premier jour bi ak tey ñi ñu rejeté ci ay doublon dafa bëri trop ñeneen ñu constaté que seen ay euh, ñi leen pare ne nekkuñu sax ci ci fichier bi est-ce que les filtres son finalement bons bi ñu gisee tamit ni au début il y avait 300 presque yu dem retirer ji ay fiches bi ñuy fayee caution tamit ay 93 euh, ñëw déposé c'est un vrai problème la il y a un vrai problème né du fait que la loi a été mal changée. oui je rappelle que Sénégal. Mm -hmm. euh, dans l'histoire politique. Mm -hmm. on n'a jamais eu un problème de nombre de candidats. Mhm. Euh, je me rappelle élection présidentielle la participation musul weesu une quinzaine de candidats. Mhm. Sénégal on a connu le problème des de pléthore de candidats mhm. sous Macky Sall. am na sax ñuy wax ne. moom moo créé loolu avec mmh. ces listes parallèles pendant les élections législatives et locales pour ne serait-ce que ne pas laisser son électorat s'effriter. Mais ça, c'est un autre débat. Ce qu'il y a lieu de constater, c'est qu'en 2016, le président Macky Sall a agité l'idée de rationalisation de l'espace mmh, politique. Mmh. Où est-ce qu'il en est mmh. Et je pense que sous l'eau Aboutiroun, mhm. on n'allait pas aujourd'hui connaître ces oui. problèmes-là. Malheureusement, fait, fait ce n'est pas le cas. Mhm. Sénégal, on essaie de régler au cas par cas, mhm. sans pour autant avoir une vision globale. conjoncturelle euh, conjoncturelle. Mm -hmm. les parrainages quand on l'a fait ñun dañ ko ŋaññi. mais yéen a ngi woon ca dialogue bañ ko valider. maa ñëw maa ngi ñëw. wàññi ratio beeg yooyu. maa ngi ñëw ñun dañ ko ŋaññoon. waaw. bu ngeen ko ŋaññee it loolu la juboo moom la ñu mujj dawal. ñu dem ba dialogue bii ñu woote ko. oui. tey am na dialogue parlementaire am na parrainage parlementaire. oui baaxul. am na parrainage mais du ñëpp. oui ñëpp a yemuñu dans une démocratie ñeent ou juróom tout au plus ñoo dans une démocratie j'arrive mhm. euh, der il faut nangu benn affaire mhm. une élection présidentielle mhm. même une élection locale du nekk candidat une élection dafa sérieuse Il faut qu'on se dise la vérité mmh. au Sénégal euh, qu'on qu'on ñu tout le monde ne peut pas être candidat, candidat. à une élection présidentielle euh, aujourd'hui cette pléthore de candidatures ne se justifie pas Rien ne peut justifier cela. Donc, euh, je te rappelle l'histoire du parrainage. Mm -hmm. Quand le président Macky Sall en a parlé, au départ, euh, il a fait un forcing. Il n'y avait pas de débat mm -hmm. sur le parrainage. On l'a souligné. Mm -hmm. En tant que parti républicain, mhm. on l'a dénoncé. Euh, malheureusement, ils ont forcé, en passant par une élection, une mhm. deuxième élection, jusqu'à ce dernier dialogue. on a jugé nous dañu war a dem dialoguer. parce que y a des questions d'intérêt national yi nga xam ne daf ñu concerné dañu war a dem ci dialogue bi. bi ñu demee ci dialogue bi wax nañ suñu xalaat et ci dialogue boobu lañ génnee tey ne parrainage c'est vrai que c'est pas encore parfait c'est à parfaire. mais ñu ne kat am na ñu am difficulté. pour parrainer. ay citoyens. parce que tout simplement les grands partis. Mhm. prennent tout. ñu mhm. ne bon ok nañu def donc parrainage par des élus ou parrainage parlementaire ce qui va permettre de décongestionner. Mhm. l'assiette pour permettre aux autres de pouvoir parrainer. mais même ça c'est bien. c'est un pas. la mise en œuvre de cette disposition aujourd'hui montre que il y a encore du chemin à faire. ça. il y a encore du chemin à faire. Le il faudrait est que, encore à parfaire, il faudra ouais. approfondir les, ouais. le dialogue politique. Ouais. Il faudra approfondir les discussions, la réflexion, la réflexion surtout, pour faire en sorte que euh, de véritables verrous pourront être mises sur pied mhm. et encadrer les fonctions importantes, à savoir la fonction de président de la République et même d'autres fonctions électives dans ce pays. malheureusement temps bi daf ñu tànc. je vous en prie ak sa ak sa PDS euh, merci. Uh-huh. et pour dire au PDS et à tous les Sénégalais. Uh-huh. qui nous écoutent euh, que le discours de Karim Wade est un discours d'une très haute portée politique. Euh, dafa laaj njàngat. bu mhm. rëy bu sénégalais war a def ci discours boobu parce que yëngal na ci ay xalaat wax na ci jëmuwaayam invité na sénégalais yi particulièrement les mhm. jeunes et les femmes à ñu taxaw créer ce que le pacte collectif de gouvernance pacte collectif de mhm. gouvernance loo nga xam ne la tey contrat moral moo ko lal engagement solennel à servir la nation moo ko laal mm-hmm. volonté de défendre l'intérêt public et l'intérêt de tous les Sénégalais mmh. et je pense que c'est un discours d'un grand homme politique mmh. euh, issu d'un grand parti politique comme le Parti démocratique sénégalais et un parti un candidat qui en quelque sorte reprenne le chemin du vrai projet libéral du projet dont les bases ont été jetées par le président Wade père fondateur de notre parti mais également du projet que nous portons pour le Sénégal et pour Ba merci beaucoup. c'est moi qui vous remercie. jërëjëf ngeen jëf yéen ñi àndoon nag ñun ci soir d'info léegi léegi dañuy dellusi si waat euh, faram-fàcceel leen xibaaru marax yi ci kattanu borom bi. Groupe présente le spécial Coupe d'Afrique des Nations CAN Abidjan 2024. Départ prévu le 12 janvier 2024 avec Air Sénégal et le 11 janvier avec Kenya Airways. dañ la defal benn pack boo xam retour transfert aéroport lieu d'hébergement aller transfert lieu d'hébergement aéroport retour hébergement chambre double ou appartement ou villa service de sécurité rencontre d'investissement B2B et B2C fanzo zone en option animation culturelle avec les associations sportives visite découverte touristique ticket match Sénégal des visites à la découverte de la culture ivoirienne excursion Bassam ci la bokk dem Cocody dem Assini Mafia package de 12 jours à 950 000 francs avec possibilité de prolonger votre séjour package de 30 jours à 1 million 700 000 francs dugalal 50 pour cent daal di def sa réservation faites 18 475 0000 ou le 00221 33 864 52 41